tey daal loolu moo nekkoon donc boo waxtaan bi et puis def nañ terme de référence donc euh, ci ay fan yu néew danañ lancer donc l' appel d' offre euh, l' appel d' sera donc bon des des des des experts affairés ah en matière d' a def donc mooy étude boobu euh, plan d' urgence bi également donc on va lancer rapidement donc aussi les appels d' offres. estimé ngeen plan d' urgence bi estimé nañ ko ça va tourner peut-être autour de 2 milliards de francs CFA ah études yi boo ko jëlee peut-être ça va avoisiner plus de donc bon. 170 millions de francs donc ngeen gis ne xaay bu takku la xaay boo xam ne bii donc euh, am nañ genn wàll gi am nañ une partie du moins beneen partie bi également autorité yi wax nañu ne dem leen xooli na ngeen ko mën amee donc yaakaar nañu ne donc ci ay fan yu néew on trouvera donc bon, des solutions avec l'autorité parce que tout le monde est sensible et ensuite ay directives la yoo xam ne yi mu nga jógee ci président de la république di ñaan yàlla rek que prochain màggal nekk màggal boo xam ne bii. vraiment forage de luy pompe yi dem ci suuf wala yaa ngi doon wax léegi ndax dafay am ay château d'eau wala forage. waaw waaw dana am ay château d'eau mais château d'eau yi euh, wóoragul ndax mu mën a pare fi ak prochain màggal parce que château d'eau yu mag la ay cinq 500. Euh, donc euh, mètre cube ay 1000 mètres cube nekk château yu mag nekkul château yu ndaw donc boo jëlee seen construction ak loo gaaw gaaw quelle que soit l'entreprise dana jël ay au moins 7 mois 8 mois. te gis nga ne fi mu nekk nii pratiquement màggal fi mu nekk nii presque loolu moo fi des mais en tout cas euh, danañ ko lancer danañ ko commencer ni ñi xam ne donc ñu ci. en attendant peut-être forage yi moom y a pas problème dina mën a pare à temps yenn action yëpp dina mën a pare en tout cas suñu xel yaat ci forage lay nekk am na yoo xam ne aussi dañ koy réhabiliter nekk yoo xam ne dañ koy tabaxaat dañ koy walla yu ñuy defaraat ñu ngi existé ba pare en tout cas daal loolu mu ëmb le programme donc moo d'urgence bi nga xam ne bii yaakaar na ne bu ñu ko defee donc euh, danay régler problème yu bëri euh, ndox moom da ngay xool service bi nga xam ne bii moom mooy yëngu ci ndox mi pour indi la ndox ba sa kër nekkul pratiquement looy fay see un service ah bu nit ñi di assurer donc gis nga souvent pompes yi dañuy panne pompes yi nekkul ay pompes yu ndaw ay pompe yu mag la ñaare sa pompe yi du am fii da nga koy commandé à l'extérieur gis nga mamagal bi muy ñëw pompe yi dañ ko indi même par avion parce que sinon mën ça peut prendre trois mois ensuite énergie bi mu nekk ay factures yoo xam ne yu tar la également boo xoolee Touba pratiquement la facture énergétique day tourner autour de plus d'un milliard de francs CFA loolu aussi ay service la donc je crois que comme ni ma ko yàgg di waxee kuy fay téléphone di fay euh, donc bon courant ah di fey yeneen services yoo xam ne yaa ngi koy jëfandikoo boo ñu la waxee ne aussi kaay participer yaakaar na ne donc bon donc bañ.